Euh, beneen question bi may laajte euh, Gris Bordeaux laa koy laajte euh, gis nañ seen vidéo yi yéen ñaar seen yi ngeen doon waxante yàgg la mais tout le temps même wax ji mooy ñëw Gris Bordeaux du ci la dong lañu ko dégg déggaat nañ ko waaw mais dinañ la laajte Gris Bordeaux lu tax ku la xool ne da ngay tux boon. loolu loolu dum la ci tontu. loolu jaaxal ñu bëri. loolu dum la ci tontu deuxième waaw question bi may laajte Gris Bordeaux ba tey. ba léegi amul benn question boo may. question la boo may répondre boo may laaj ma la koy wax ma lay tontu parce que de un tu question la amul benn question bu may tontu ne t'en fais ne te fatigue même pas mën nañoo continuer wala. voilà euh, Gris Bordeaux ñu seetlu aussi ne que Fass nee nañ bu tasee tey Gris Bordeaux moo ko tas parce que ku am problème Fass Gris Bordeaux lay wax ne la amal problème. Euh, lan mooy problème mu Gris Bordeaux loolu la ñuy laajte euh, su ma jógee ci Gris Bordeaux euh, tourné si Balla Gaye ci waxante yi ba tey Gris Bordeaux nee na Balla Gaye da doon jël ay doom Balla feebaroon na fi ñu bëgg a xam feebar boobu lan moo ko indi woon merci. Gris pour répondre à la question. waaw Malick j'espère que ñun ñëpp ay ay mbër lañ. nous dañ fi uniquement pour la presse Et ñun on se respecte ah mbër événement bi ñuy def ak nu mu ak euh, dayoo bu mu mën a bu mu mën a jël rek fu dem rek presse bi moo fa hein. on se respecte j'espère que question yi dégg attentivement mais mais n'est pas la première fois nga may poser genre question yi et je ngi ko doon xaar ci yow bettu benn xamal li ngay laaj rek waaye bul xam lu ñu lay tontu dama bëgg nga résumer ma ma question yi ma tontu tontu la attentivement benn par benn mooy lan da dégg dégg man tux yàmbaa euh, Gris Bordeaux day tux yàmbaa ba ma ko dalee dégg ak léegi barki Cheikhou Tidiane am na boobu sama début carrière la xamoo mbër yi daf ci bëri ñoo xam ne ay ragal lañ barki Cheikhou Tidiane dafa ci bëri ñoo xam ne ay ragal lañ man man Gris Bordeaux man Gris bu nekkee mës naa jël yàmbaa teg ko sama gémmiñ gi yàlla bu ma gisanteeg Cheikhu Tidiane kara yow ma la xiyaam te te loolu waxuma ko pour ay wax pour faire plaisir ak ki compte question yi nga ma posé dama ko bi nga jógee ak sa kanam ku ndaw gi laa xam ni fa nga jëm mais dérangé wu ma mais yàmbaa bañ may wax ni Gris Bordeaux day tux yàmbaa wala day day ñëw ci làmb dina def tàkk parce que mbër yi quatre-vingt-dix pour cent yi ay tapet lañu ragal am na si ñoo xamne sama ay gaynde lañ dañuy ñew naturellement mais man lamb bu ma mësee dugg ci lamb dara du séeréer mo ne fi ta man sama boy yi Medina ni bu ñu yëngalé ci kaw ba do dóor ma marainement bi dama am lu may yëk mais ay tuk yamba kep ko kep ko ko koy def oui ma oui ma fii ka du film la way dama tok waaye loolu wuyu ma beneen question bi mooy lan affaire yàmbaa dañ ko teg fële. Gris Bordeaux taaliba taalibe la yàmbaa képp ku koy jëfandikoo di ko motulikoo ragal nga te Médina ragal dëkku fa Médina der dëkk fay dëkk xam nga dëgg ndante dëggantaan du ko jëfandikoo sax ngaaka rek koy jëfandikoo beneen question bi mooy ban mooy coow lu bari bu amé Fass dañu nan gri Bordeaux mo tass Fass parce que Gri Bordeaux kep ku joggé Fass rek bo ñu né gri Bordeaux nga amal problème lool la laaj. waaw écurie euh damay ñaan yalla damay damay ñaan yalla ah man dal soxla na supporter bu discipliné trop di déglu parce que on est da ñëw fi uniquement pour euh, manam tay euh ci écurie Fass. écurie Fass euh, man Gris Bordeaux la ma fa enduré la ma fa daj ak la ma fa muñ ak la ma la ma sëgg ñu jaar sama gannaaw sama kaw su ma doon beneen mbër wala wala ma nekk doomu aadama boo xam ne aw ma éducation de base wala defuñu ci man samay waajur defuñu ci man muñ ak tempérament bés sa xol ak xam ni ku jiitu rek il faut nga sëgg ni ñi jaar sa kaw kon écurie beneen écurie lañuy wax kon man génn naa écurie dem feneen waaye man dama sant sama ay waajur bañ ma tegee ci siraatal mustaqim jàngaloo ma muñ dugal ma daara ma jaar ci ay formation bi nga xam ne doomu aadama bu fa jaaree coono bu la waay mën a teg di ko muñ ma dama lay damay sant sama ay kilifa ci loolu mais écurie samay dirigeant commençant par mon président bu ñu déggee li may wax nañu xam ne Gris Bordeaux mii c'est un vrai leader leader moi kan moi ki nga xam ne tey boo jiitoo lu la waay a teg nga mun ko muñ te man loolu ba pare am ay kilifa parce que man je suis un leader mais malgré tout ça amul lenn lu may def ci lamb té duma ko yogo ak suma ay kilifa mais amna ay mbeur yo xamné fi tay lepp ñokoy doxal sen bop ken xamul leen dara sante yalla